Iva la ñuy dem seeti euh, di euh, jabaru Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim sekk mi nga xam ne euh, boobaak léegi moom affaire soxna moom ah nooree ni ah. Hmm? xamoo li ma bëgg a wax dama ko yeggale ah bi nekk 2STV yow gën nga koo gis mu ngi fi mu tuddati sax sant John sant hmm? daa mel ni Astou la tudd de kon. Ah. Hmm? yow yaa ma wax sant bi. mu moom. fan def Baara Dolli waaw waaw waaw. Hmm? kon mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi kon. daf mel ni démb sa gis naa ko. ok ok ok. d' dañ doon laajte rek. dañoo am nostalgie rek. waaw ah, at na mu benn solo. Euh, soxna Cheikh Yérim Seck bi euh, bokkul ak Astou Dione mi nga xam ne moom la divorcé parce que kii jabaram la actuellement muy Ngo la diva. di artiste chanteuse euh, moom nag euh, dafa génn démb ci TikTok bi di wax ay bal di wax ay bal wax ni ay euh, ay wujjëm maanaam ñetti jabaru Cheikh Yérim sekk moom muy ñeenteel bi ñoo ko ñoo bëgg a tas sëyam di influencer ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Yérim sekk ba fi mu toll ni lekkatul naanatul amatul yaram parce que ki mu bëgg lañ ko bëgg a tàkkaleel mu wax ci ay kàddu yu doy waar nañ dem teewlu élément bi te ñëwaat avec la comité. mu ne dañ ko teg pression na ma fase lan laa bëgg mu jox ma ko pour mu tas fase ma ma ne ko bëgguma oto bëgguma kër bëgguma dara man sëy bi rek laa bëgg lii mooy problème bi mais damaa laaj pour ñoom ñu xam ne pression bi ñu koy teg man gis yëg naa ko te maa ngi koy dund te maa leen gën a réew te barke alxuraanu karim bu ma fasee duñ ko jëriñoo soit dina leen fase benn soit dootuñu am jëkkër kon que personne monte ici me dire que Cheikh il est comme ça ou il est comme ça bu ma gisoon ci moom sikk bu ma neexul duma ma sëy moom. Fernando. waaw. sëru ngoone laa. Mm-hmm. lii dafa metti trop. Ngone dafa nekk bokk ci famille bu baax. am ay mbokk am lépp jigéen kenn du ko takk matul 4 mois nga ne ko ne njàkk ne ne yàq bu forox ndax lan waxoo ne ngóone daf ma tooñ waxoo ngóone lii la ma def waxoo ngóone laa la ma def waxoo dara lu dul motifu fase mooy lan sama jabar yi ñoo ne naa ko wala samay doom te ba ngay takk am nga jabar bàyyi say doom bàyyi lépp sa kër ba mu neex la nga ñëw dafa metti jigéen jigéen kenn du ko toroxal soxna si Cheikh Yérim si boppam moom moo ñëw wax ne samay jabar moom ñoom ñoo wax ne naa la fase Cheikh Yérim jox ma jox ma jox ma allo waaw allo waaw waaw ngoo bu ay jigéen jëlee seen bagage ñoom ñett ñëpp dem seen yoon ñoom ñëpp génn kër gi dem seen yoon. ne seen yi ñëpp génn ko muñ nag ma muñ ko. naka la góor di takkee jabar ngeen ne ko da koy fase wala yéene kan. naka la góor di takkee jabar koo xam ne yéen trois ans maa ngi ak seen jëkkër trois ans trieuse duma ko woo téléphone duma ko message tooñu ma leen lijjantiwu ma leen xaw ma noo leen tudd xaw ma foo leen dëkk ngeen créé seen ay faux compte lu ma publier ngeen yónnee ko ko lu ma publier ngeen yónnee ko ko bi ma takkee ba quoi j'ai pas besoin de voiture j'ai pas besoin de maison j'ai pas besoin d'argent j'ai besoin de notre mari suñu jëkkër tasuma tey tasuma suba bu ma naree fase dinañ taxaw ci kanamu juge mu wax loolu ma fase lan laa ko def pour mu fase ma ñi ma takk deewuñu ñu ngi dund les témoins sont là muñ naa ba sonn maa a jël samay photo def ci sama tur ngoone chéri yërëm yéen seen jëkkër bu takkee takk suuf sax nëbb leen ko ngeen war koo mun ngeen war a muutuwaale ko noppi ko ngeen xam ne du dem seet xale bu kii nga takk non non nga takk yéen ngeen am jotu bind sama tur ak yirim dinaa leen laay fal ñu takkal ko mamaana mannequin ba sama xarit ba jàll jiir mu buub ay debosam dem ñëw wujjee nekk troisième takk suuf deux ans ñu takk ngóor ngeen buub seen bagage ngeen ne da di dem. mi ngoog euh, en plus indi ay révélation ci ay wujjam ak Cheikh Yérim Seck waxaat na beneen révélation muy <laughs> nee na Cheikh Yérim di jëkkëram dafa takkoon Adja Diallo takk suuf loolu xam naa dinañ ci wax mais li gën a doy waar mooy ndaw si ñu bari ci TikTok bi dañ koo fan xam nga lu tax nee na leen bu sama jëkkër bu ma sama jëkkër naree bàyyi yéen lay bàyyi moo tax li gën mooy ñu toggandoo sëy ko parce que bugguma oto bugguma kër bugguma xaalis suñu jëkkër laa bëgg ça veut moom nangu na ni bokk na jëkkër ji waaye nangu ko bàyyi également góor bu demee maanaam je parle en général et je te pose cette question dama lay laaj euh, góor bu demee ba nara fase jabaram parce que ay jabaram ñoo ko koy demandé loolu ban façon góor la déjà balaa ngay ñëw ci ci ci ci débat bi. góoru caabataat. Hmm? <laughs> góoru caapataat. mooy def loolu. ah ndax dama xam ne man maa la takk takkoon. waaw yaa may digal man maa lay digal ngay jëfe waaye doo doomu digal ah, wax dëgg fa ak lu tax ñu war ko koo faseloo. waaw ah. tamit laaj la de. ñoo xam daal waaye man daal <laughs> jigéen dama conditionné naa ma defal lii ak lii. d'accord ndax damaa góorgóorlu ba tàkk la bu ma takkee keneen da ngay da toog mbaa nga dem yow. moom nee tasul de. ah boo amee ful ngoo nee na tasul de. Mm, nee te bés bu ko bu ko waaj naree fase dina indi ay juge wax leen ne leen na leen wax lu ma ko def. waaw ah. kon moom tooñu tooñuwul moom sëy ko tax a jóg. loo gis loo gisee wax ji. <laughs> góor manqué na Sénégal nag. <laughs> et pourtant et pourtant c'est une belle dame nag. Ah, belle kañ. <laughs> yow yërim dina ba pare jongo ma nag. yërim dina dugg ci lu bellul. wamee. kooku doful jinne jàpp ko. ba pare takk takk takk takk yi tamit. waaw parce que. te dégg naa Adja Diallo di ñam di ñam di ñam da ngay takk takk takk mooy gën Diallo takkal rek mu leew la doom eh dara newu ci. dara newu ci. yàlla baax na. dafa am ñoo xamante ni comme man. ku oddu foog nañ ñoo la war a. këlëmtikoo. fu bëri loolu fu bëri bëri na ci yi góor man mii rek benn bul sori nii laa man man faible sër laa am sëru Bob Marley. ah yàlla nga yor pour man war naa mën a yëngal bopp Bob Marley. laa mel te assumé naa ko te bëri na ci ñu mel ni man waaw dañuy assumé wala ñu ñàkk assumé yàlla dafa dogal na. sama yaay ji koddu jaar mu may seetaan te am na yoo xamante ni bugguma di ko wax ma koy dégg. ma maman koddu ñu ngi koy nuyu bu mm. baax a baax a baax maa ngi gis mm. réaction ci mm. commentaire yi. waaw mu may seetaan. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. te bugguma mu fat <laughs> man man daal lenn xam naa ko man nana xam nga ñàkk a assumé tax tàkkaguma ñàkk assumer tax tax takk boobu mais bu ma takkee bay takkaat bay takkaat man la maa koy assumer ndeysaan macha allah man maa mhm. te samay jigéen du ma fen mënu ma leen yemale mais ku ma wéetal nga xam ni yaay bu <laughs> ndax yemale amul nit nit ku ko mun jafe na jafe gay tax ku ma ci toogal ku ma ci nekkal mhm. di ne yow rek kay jeeg macha allah dinaa fexe ba doo doo doo frustré wu dinaa fexe ba doo am lu la métti. dinaa fexe ba jigéen lu ko dalal yomb na. la jigéen wax ko dëgg rek. Mm. te woon ko jigéen méttiwul de. maîtriser nga ñu de. jigéen amul benn problème gis nga jigéen la mbooloo di taxaw nii léegi saaga la ay xas la. ak bul ci dëgg bu ngeen di dox deux minutes nga jàdd boo koy kott. Mm-hmm. maanaam mu tëdd sa fii rek jeex na. jigéen la yàlla def noonu. ndeysaan léegi yow góor ki ci jëmmi boppam yaa koy njëkk a nangul sa bopp. Hmm. ba pare ba pare nga doon ku mature. Hmm. nga doon ku mature. sa sam wax na lu am solo. nee ah. na soo toppee jigéen ñi. waaw. Ah. Hmm. trois points de suspension. mais boo toppee jigéen ñi toppoo leen ci taxawaalu de. waaw. topp jigéen ñi rek. toppoo leen ci taxawaalu xam nga lu tax. kun la ci dégg na ko takk. waaye takk tamit di di fase rek. yaa xam. takk di fase rek. mais takk nga ñu lay seeyal nag. ay boo boo dajee ku mel ni ngóode. non non pas loolu sax maanaam takk takk takk takk takk mooy farata da ngay yem ci mooy farata de ngay takk ah, di fase di takk di fase même nga takk tey suba nga fase takkaat loolu farata la ba léegi da ngaa nekk ci li nga. waaye nag waaye nag ah ah waaye te tey jii bu jigéen bu jigéen bu fekkoon jigéen dafa sëy tas sëy tas ñu ñu commencé di ko waxal. bokkul. lan moo leen wutale. wallaahi bokkul. waaw lan moo leen wutale. léegi ñi koy utale. waaw ñoo koy jël di ko kii man jigéen bu tas. Hmm. sa idda jeex nga sa yar. Hmm. keroog la fi wax bi ñuy waaye man man newuma foofu de ku nekk foofu nag nekkal foofu bañalu ma la man newuma foofu. mais am na ñu nekk foofu ñoo xam. Hmm. am na ñoo xam ne aussi ils ont du mal à comprendre góor lan moo tax muy takk di tekki takk di tekki ñoo xam. man ci laa bokk. waa di nga foog di nga foog ne kii mooy waaja ndekete du waaja. ah bon barke Serigne. Ah, mais ngoo ngoo mi waaja la de. parce que jigéen bu ne la man duma la tooñ. waxuma oto bëgguma kër. gis nga maanaam jigéen waaw man maa constaté loolu. man maa constaté loolu. Mhm. man comme tey ji man benn ci man. Mhm. xam mu nopp mhm. ñu noppante am na ay jikkoom yu ma neexul. ah bon. waaw day am parce que parfait waaw dama ne parfait wu ma. ne parfait. am na ay jikkoom yoo xam neexu mais dama ko ci yar ba mu neex ma moom it mu yar ma ci lu ko neexul ba mu neex ko. ok ok. dégg nga. Mhm. ànd nii la. bu ngeen mënta àndee ni bàyyi leen. mais mais mais revenons fii laay ñëw de. ayca. ñi leen yar bokkul. Mhm. fi ngeen dëkk bokkul. waaw dundin yi mhm. jikko yi bokkuñ. kon nanaa bu indee jikkoom gaynde indi jikkoom rek ku ci nekk ne sa jikkoom morom par force la. day metti merci nii la effectivement. ku ci nekk da ngay fexe comprendre sa morom ci jikkoom. Mm-hmm. fexe xul nay adopté wu ci jikkoom ba defar jikkoom jooju doon lii la gën a. Mm-hmm. moom it mu fexe xam lan ne sa jikko ba dimbali la ci ba adopté ko ci boppam ba xam bu ko defee télépathie day am. macha allah mooy waral nga nga jékki-jékki ne namm naa fu ne yëkkati sa téléphone mu a waaye mm-hmm. ça arrive souvent. yëg la. day day arrivé. waaye lii. ah. ndaw si dafa doon loo xamante ni moom ndaw si la xam nga bi muy doxaanante ñun yëguñu ko. dëgg la. toog na fi ay at. Mm. di doxaanante ak moom. Mm-hmm. du moo ko wax ah. ah moom moo ko wax. Mm-hmm. nee na toog na fi ay at. Mm-hmm. di génn génn ba muy takk ajaajalu takku suuf lépp maa ngi toog comprendre te waxuma. léegi nag yow takk nañ la. ni mu ko takkee takk suuf. léegi yow takk nañ la. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ci farata yàlla ak sunu maam mu doon lu siiw. Mm-hmm. nga dund ko. nañ bàyyi ngoone ci laisser aller xool yéen ndax moom daf ko nopp. waay daa nopp Seex Yérim. léegi pour confirmer la daa nopp Seex Yérim boobu balaa ngay développer. ngoone moom moo fi wayoon lii. dégg mooy bi ko bi ko Cheikh Yérim takkee. Mhm. Euh, parce que su ma juumul nee na def na moom trois ans. Mhm. te lii bi mu ko génnee il y de cela trois ans. Mhm. nee na ko Ngoné la diva ñëw na ci sa dund. dina la feccal dina la woyal dina la reetaan loo. lépp lu la metti woon ci biir way bi mi ngi koy wax parce que bëgguma ñu yegg ba foofu noonu parce que dafa gudd. Euh, lépp lu la naqari woon ci sa dund dinaa fexe mu lay neex. kon luy problème bi. du problème bi taj parce que mooy du problème bi taj taj non mais j'ai du mal à comprendre euh, Noreyni va va va waxkat yi va purée jéeg muy say te bëgg say yow ngoonee baax jéeg muy say te bëgg say ngone laay woyal jënd ko ndax la diva jar nga woyal dund ko ndax chéri Ndumbaan jar nga woyal dund ko ndax séeri Cheikh bi Yérim Seck dund ko ndax <laughs> journaliste bu mag bi waykat bi ah, pour ah, moom ngone tasul bu tas de te nee na ñett ñi tas ndox moo gën moo gën a yomb mais tas yow daal xam nga lan la sëyal sa sëy boo hmm. bu gën surtout bul ñàqal sa bopp fayda waaye foofu foofu laa doon ñëw nóoree nii parce que man euh, comme la plupart des sénégalais d'ailleurs euh, dañoo ne góor bu dem ban bëgg la may baat nga xam ni kii lii la bëgg hmm. quel soit lu war a tax ak loo ko bëgg-bëgg-bëgg mu naan la sama jabar tax ak samay doom a tax ak quel que soit motif bi war a tax danga ko war a accorder loolu parce que ki demoon ba bëgg la je sais pas nag euh, kan moo def première pas ci ñoom ñaar mais xam nga fii moom on a l'habitude de voir góor ñi ñoom ñooy dem ver jigéen ñi bien vrai que bareetul mais quel que soit fa da nga ko war a bàyyi mu def choix wam comme ni mu ko bëggee mais imaginer nit koo xam ne dana la dama la bëgg a fase parce que samay jabar ñoo ma ko demandé nga ëlbatiku non seulement joxoo ko toor bi mais yaa ngi wax ñoo xamante ni amaana sax wóoru la ndax loolu dëgg la wala du dëgg nga di leen tuur coow bi di leen accuser de euh, yéen a ma def loolu yi yéen ay def loolu yi sama jëkkër yéen a tax amul bonheur yéen a tax lekkatul yéen a tax naanatul trop d'accusation ci ci ci ay wujjam quand même. moom li mu wax mhm. ko cee mere. wala Cheikh Yérim moom Ngoné ok xam nga tax mhm. xamoo ñooñu waay surtout xamoo lu ñuy dund fa doon waxee bul defar sa bopp ba tax nga xas la waay bu góor taxit nga xas sama roomu jigéen benn benn benn benn mhm. man doon sama rakk sama mag ñu toog ma ma ni dootul dem ca kër foowee naan la dama lay fase ngir samay nangam waaw du ñaar soo doonee sama rakk wala sama boo ñëwee dama defar diggante ba day jeex loolu dootoo ñibbi la ñuy fexee jëli mu sama rakk waay effectivement donc mi ngi noonu. léegi nii. Mhm. ne ko maa ngi koy conseillé. Mhm. bëgg bu mu la jaral dee. surtout. bëgg bu mu la jàkk nga yàq sa avenir. Mhm. tu belle macha allah. wallaay na la yàlla sax et puis mën dafa mën a way. góor ñi dañuy fen. la benn ci man dama koy wax. la plupart. bu ñu la waxee dix. benn cay dëgg te benn boobu ñu naan dëgg la lijjanti ko sax ndax boobu dëgg la man ak samay morom surtout man <laughs> léegi nag boo dee jigéen. ci yàlla. am yoo jekk di ko def lii grande dame du ko def. surtout. dañ la tàkk sëy dana jaral ay wili paande ñaa ngi toroxal sa bopp. ma hmm. gars dañ koy def naan déedéet jeeg nga li nga wax ci woyu hmm. dund ko. exécuté bu ko wax bu ko wax àdduna yow ñi ngi koy wax ñi ngi koy exposé Sénégal gi ngi koy wax ñu koy dégg luñ ci mën lan lañ ciy def ñun dégg ko ñenn ñi comme ñun ñi di def people toog ko people lañ koy def nee toog wax mais amul ko la ciy fajal eh, yow yaay jeeg yow yaay sëy yow yaay sëy mhm. fexe jël sa góor téye sa takk sax sa lafu sër boo ko mënee ci jàmm ak salaam sutura ak ful la mm. gis nga góor ñu bari li tax sëy di tas ba ci actrices yeeg ñii ngay dégg nobuñ leen dañ leen xemem dañ leen xemem. am na ko yu mel noonu ñi ñi nob bëriwuñ de. Mm. lu leer laa la xemem buñ la ñafe jombal rek daw. yaay code du jàkk waaye dana ma rey baal ma. ok seen baaraamu tuuma bi buñ la ko tuumalee rek daw après dara safatu leen. Mm-hmm. maanaam vingt millions nag mun nañ ko ci yow. Hmm. xam nga lu sax vingt millions mun nañ ko ñàkk ci yow. ngir benn weer rek muy neex rek. léeg-léeg du mat sax weer. waaw léegi bu maanaam sàppi nga rek. Hmm. ba nañ la fa utiwaat yeneen vingt millions kuñ ko joxaat. takk suuf bi. takk suuf ak ñàkk a takk suuf ñoom ñoom nañuy xewem di mos di dem. mais ku mel ni Adja Diallo par exemple ñu koy dégg. xemem la mos dem et pourtant et pourtant rumeur yooyu doon la fi daw. walaay ñoo xam xemem la mos dem noppuñ leen pour ñu noppalu bari na ci. yi ngay dégg sëy yi ngay dégg mu mu di tas noonu leen gars yi leen di xool da ngay xool jékki-jékki benn vidéo say wenn ñu paccal ko mu jug nangam sax nga daagu fi muy toog lay toog xemem la ci saas yi nga jaral ko nag subaa ngoon guddee de un jënd sa numéro un million jaral na ko ko fexe ba jox la rendez-vous premier woo bi mu lay woo may la million deuxième bi mayaat la troisième bi moo la may ñeenteel bi bu la woowee yaa ñëw ut si million yow yaay doy na mu mayaat la million dese na ko quinze millions. Hmm. bu lay takk da lay may dix millions yi nga jënd ñàng léegi nag li nga xamante ne mooy des métteetul trois millions cinq cent yi des moom lay noose ak yow mu jeex pare na ci. Hmm. pour ñu xam seen bopp. doy na waar. donc mi ngi wook euh, presque résumé nga lépp waaye man jàpp naa ni euh, xëy na mi ngi def wareefam euh, dayax sax loolu moo waral mu am esprit bii nii jàpp ni Cheikh Yérim li mu ko wax amaana dëgg la weddi ko nag mais xëy na esprit le fait que mi ngi sëy sëyam defu ko dara lu ko war a mën a naqari ba tax mu war ko fase xëy na moo waral bi ko Cheikh Yérim waxee bu ñu sukkandikoo ci ngóone li mu wax Cheikh Yérim daf ko wax ni samay jabar ñoo tax ma bëgg laa fase parce que ñoom ñoo ma ko dégtal alors que bëgg naa la donc euh, xëy na le fait mu ngi def waree wareefam moo tax mu gëm kàddu yooyu mais man personnellement euh, li may wax ni man la engagé jàpp ni jigéen góor war na koo mën a takk wala mu di ko fase ci ay ndigalu yeneen jigéen je pense pas donc nit ki boo ko buggul ba ko fa loo buggul ba ko fa loo moomul ba ko fa comme ni ñu koy waxee mais nag euh, doy na waar en tout cas jigéen ñi aussi nañu xool bu baax a baax ci ñan la ñuy dugg ci yan góor la ñuy dugg parce que góor bari bokkul mi ngoog euh, donc euh, ñu dem rek ci xeex bu doy waar xeex bu doy waar diggante engagé ak maam Ndiaye Savon Noreyni euh, ku ne xam na ni Mame Ndiaye Savon